wa fi dafa amone lak bu fi amoon troisième étage euh, mbedu Askia Mohamed ci école bi fi la xewé won bu amé itam wo nañ support existé wo len mais ñom itam gaawu ñu ñew quoi dañu xawa a yéex bu ñu ñew ci yoon bi aussi nee na embouteillage dafa amone mo len xawoon té mo tax affaire bi xawoon am galancor bi lak bi ay 10 h jam 11 h bi ay midi ha ah, dafa xawa diré quoi dafa xawa a diré naa euh, après 3 h de temps dal war na ko mëna am sincèrement xaw diré duré quoi waaw affaire bi daal noonu la demee woon quoi noonu la demee nag mais heureusement kenn gaañu ko ci bagage yi daal li nekkoon ci salle bi ak beneen néeg bi yëpp lépp a lakk nag lépp lépp lakk na ba jeex mais kenn gaañu ci quoi nag. non non kenn deewu ci moom heureusement kenn deewu ci loolu yëpp sant la rek ndax mënoon na gën a garaaw nii am na lakk yoo xam nii dañ ciy dee ainsi de suite mais nag lii moom kenn deewu ci nag bagage yi daal moom lakk nañ lépp jeex dar wàccul daal dara daal gënul ci bagage yi. waaw bi ñu déggee euh, doon lakk mais benn kër moo doon lakk. mais ba kër gi aussi dégg naa école la woon moo nekkoon ancien Askia Mohamed mais ker la léegi kër la kër locataire la léegi école bi moo nekk ci wetam noonu waaw mais kër la quoi kër locataire la kër locataire la daal en tout cas. Ah, ay nit ñoo fa dekoon ñu bëri waaw xam na ñu bari nag. ñu waaw. waaw sa euh, no amoon nañ jafe-jafe tuuti pour dugg si mais bu ñu ñëwee itam seen armat def nañ seen seen jàmbaar def nañ seen jàmbaar ba daal def na daal lépp daal pour ñu fay tam góorgóorlu nañ def nañ seen liggéey daal def nañ seen liggéey bu baax a baax moom sante nañ leen bu baax waaw. mais lakk bi daal lakk bi daal sincèrement mënu ma laa wax ñun itam mënuñu wax fii ne nii ndax ñoom fi ñu nekkoon ñu nekkoon si biir waxaguñu daal lu ko lu ko lu ko làkk ñun itam xamuñu dañoo jékki-jékki dañu toog daal ci mbedd mi ba gis muy saxaar daal ñu ne ah fii kat mu ngi làkk gaa yi commencé wuti ay ndox di yeeg di jéem a kii affaire bi daal gën a garaaw mais ñun daal waxaguñu daal xamaguñu daal lu ko lakk lu ko làkk daal xamaguñ ko waaw lu def làkk bi xamaguñ ko ko waaw ok ñun tam gërëm sant naa leen bu baax waaw noonu ngeen ko dégg rek noonu la amee parce que man si appartement bi laa dëkk mais ay boori 10 heures yooyu rek man xëy xëyuma woon liggéey tey xëy xawoon na malaat tëdd di nelaw mais après seen ma wooye rek na ma naa wàcc xale yi parce que am na appartement buy lakk fi après bi ñu ma ko waxee ma wàcce ci suuf laa seen appartement bi jàpp après ma laaj maire bi mu ne moom xamut lan moo ko taal après nag si lañ soog a wàccee ñi dëkk ci appartement bi ñëpp parce que appartement bi huit appartement la mais ñu fi dëkkoon ñëpp dañ leen a wàccee ci suuf après ñu toog di xaar sapeur pour mu ñëw fay fay fay lakk bi sapeur nag euh, temps yu ñëw diire na lu jege 30 minutes yoo xam ne ñu ngi toog di ko xaar muy soog a ñëw après bi mu ñëwee nag vraiment ñoom def nañ effort bu baax jàmbaar lañ def nañ tout le moyen daal pour fay affaire bi waaw non amoon na jafe-jafe parce que bi ñu ñëwee fekk na porte bi tëje donc ki fi nekkoon goro bi la mais moom dafa nekkoon si biir di nelaw yëgul woon affaire bi mais bi ñu ko yeeyee après ci la ci la wàcc ci suuf delloowaat porte bi tëj ko après bi bi bi ñëwee fekk ñu tëj ko nag après si lañ ko dajji pour dugg si affaire ci biir pour fay affaire bi waaw boobu ñoo yeew wàcc na boobu yee nañ ko ba mu wàcc ci suuf waaw. mais mi ngi doon nelaw waaw No, non amul ben nit bu ci faatu amul kenn ku ci faatu waaw mais nak vraiment mom yak yak mom foko tak rek passé nako metti na trop parce que ñëpp ak kim suyee ñim suyee won ñëpp kenn ko na yére bi nga sol nga dese dara génn waaw seen salon bi seen télé yi seen frigo yi yëpp lak lakk génnewuñ dara non borom kër gi mom dëkk fi parce que kër gi yëpp dañ ko louer borom kër gi moom ñaari tali la dëkk waaw waaw xam nga xam nga ñoom dañu xëyoon xam naa dañu xëy dem liggéey parce que tey di la dañu xëyoon dem liggéey waaw dañu xëyoon dem liggéey xale yi jàngi waaw après ba léegi nii moom xamuñu ko ko waaw ñoom ba léegi nii xamaguñ ko daal waaw gars def nañ seen rapport ba dem mais waxuñ xamuñu lan moo ko lakk daal exact nii waaw waaw man dama fi luyee rek depuis 2009 ay duma borom kër gi léegi nag ma xëy tey ci suba rek ay 9 heures yooyu laa yeewu defaraat lem mbaaj yëpp teg ci kaw lal bi wàcc ci sama néeg doom bi ci suuf di naan kafe man daal may naan kafe avant kaas bi di jeex lan ma ne sama bokk ñi ne ci suuf ne man ñu ngi lakk ci kaw noonu dala la demee. waaw damaa wàcc waaw sama doom fii rek moo dëkk ci suuf waaw. amuñu sondel ñun amuñu sondel courant la wa dafa jekki rek lak wallahi doom xawmako yalla xamna na xawmako xawmako ma kenn fa won ñepp jang won nañu xalé yi dañoo jàng woon ah kay ñu na fi ba dem borom kër gi ñu na fi ba dem ah bari na nak bari na ah bari na nag waaw yére xaalis sama double li sama armoire sama salon mom dal li yàq xam nga nak matériel la yaa xama mënuma la ne li la moom waaw mënuma la xayma mané dal li la wax deug yalla wa deuk rek xam nga rek tamit soy luyé ah mëno bañ yu bari do ko ki deuk rek ta yag na fi 2009 la fi ñëw wa ni la mel wa wa ni la mel wa ni la mel ni la mel de ah ñun ñu ci dëkkoon rek jël suñu bopp nag dénk yàlla ndax moom man dama naan yàlla moo ko yor ndax tey da ngay gis kuy dox sax daanu gis ku ne fii la romboon ngay dëkk rek sant yàlla nag jël sa bopp jox yàlla. Hmm. ah fi ma nekk kay xam maa ngi nii ci loxo yàlla xaw ma ko moom. waaw ah gisaguma kenn waaye xaj na dinañ ñëw parce que xam nga affaire bu am presque 10 heures. Ah, mono ne mono xamago yalla dal la jël rek jox ko sama bop ak serigne fallu nak mi ma yaakaar ndax dama àndaloon nak kas ci rajo bi ndax musuma ko tardé sama rak fièvre entrée motax tax dewuma ba lan ko entrée fi Elisabeth lolo tax dewuma ma ma ne su ma day ñaaw na tok ay heure bi mom Touba la ma naroon fekk ah, rek nak nak ku nekk mu doon yow yow tit rek waye nak jël sama bop delo ci yalla xam ne moom ku am yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ñàkkoo dara maa ngi jël sama bopp rek gis ko sëñ Touba jaboot laa nag ndax ku dem nag ba jaboot moom jaboot laa ndax li ma am ci doom sax su ma la ko waxee danga naan mer amoo loolu waaw waaye nag damay sant lu metti ci nit lay dal du dal ci bant merci merci jërëjëf doom jërëjëf